ayca waaw gannaaw boo jógee ci combat yooyu noonu. mu nekk ba tey su la nekk mu nekk journée jaajëfal combat bi nag mu nekk combat boo xamante ne am na ñu koy xaar. mu nekk combat boo xamante ni amateur yi ñëpp ñu koy xaar muy Mor Fadam ak combat boo xamante ni dañu caméra caméra dégg na ci combat bi ñoom ñaar li ñu waxante yëpp muy ci côté moom Kankan muy ci côté Alioune Sèye Junior. Cheikh moom na taxaw ci wetu Fatma na taxaw sa diggante ak Fatma. day am ñaar sa diggante ak Fatma lay taxaw. mu nekk koo xamante ni këlemale feccal këlemale tàcc temps mu nekk koo xamante ni solo gaama koo xamante ni gaa këlemale feccal këlemale waaw Alioune Sèye Junior nekk mbër moo xamante ni kon ni ko gars yi waxee bien vrai que ni ñu naan làmb dabarkale moo daan daal. mu nekk si loo xamante ni macha allah bëreeg ay moromam comme ni ko waxee bëreeg ay rakam bëreeg ay magam mu nekk combat boo xamante ni nag wax dëgg yàlla moo daan daal ah, dama lay bàyyi nga introduire si ñaari mbëri ndax. li baax na. ndax xam nga leen bu baax a baax ndax Alioune Sèye Junior jóge na ci ki ne moom mooy Tidiane Faye. ñàkk ko fii ci arène nationale la Mor Kang Kang ci ki nga moom mooy Boy Yeumbeul lépp fii ci arène nationale la mu jógee ci défaite mu jógee ci victoire du moins mm. dañ koy bàyyi nag euh, moom Alioune Sèye Junior moom mooy garab ya ah. mm, moom mu nuyoo ak Alioune Sèye Junior ñu lay waaw gannaaw bañ sant yàlla gannaaw bañ sant yàlla julli si yonent sant suñuy ñaari waajur sant sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy santaat sunu sëriñ Maam Malick Sy Moussa Mansour sant waa yëmbal waaw ñu ngi sant waa yëmbal bu baax a baax a baax a a baax waaw euh, di sant di sant sama sama gars yi ah, maa dara maa waaw li may wax daal mooy li may wax daal bëri bëriwul Mor Kankan champion la Mor Mor Mor Kankan champion la jëluñu ko nag pour maanaam pour pour leneen quoi xam nga dañ ko jël pour weer ko pour wan pour wan ni gars dara waaw loolu loolu kese la dañ ko jël pour weer ko rek wa wan wan ni gars yi ci du dara waaw. atia Mor ñu ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacké jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacké jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacké. ginnaaw ma sant yàlla julli si yàlla bi sant sama ñaari waajur di sant ñi ma teew ñi ma teewoon fii muy mag yaa Kolobaan bi maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. wala caméra yi wasalaam. nee na da laa jël pour weer la. ayca yàlla yàlla mooy weeraate moom amul. maqaama mu weer nit man sama yoon laa nekk dama ko gëm te maanaam moom grand bi du ma téye grand bi am lu may téye sorxo sorxo bi na ak yoole yoole bi yëpp ngeen bàyyi mu sedd kii nañu bëri ci perfe lay ma daan ko dem ñibbi ndax yow faat na sama xarit nga sama doom doy nga voilà lamb nag looloy lamb nag Mor Kankang ñëpp xam nañ ne confiance bi grand la tamit damaa may sens ndax su ma dee woon dara doo may sens waaye yàlla dafa def ñu seeti ko mu may ma sens ma war a mën a bëreeg moom jëflanteeg moom. waaw mu jëflante ak moom bu baax a baax a baax a baax. booy bu fi mës a ës freiné na. waaw booy fi mës a ës na leen. booy yooyu ak man ça fait deux. li dama koo xam man sama entraînement rek boo ko fekkee barke Serigne Fall laay gënal. armé la. Dakar bangoo la de da ngay entraînement bu wàccu. kon maanaam amul lu may caaxaane ci làmb. li ma la wax rek nee naa la fekk a ma million yàlla suñu borom nag moo am moo mën moo am waaye fekk aw ma million gëw ma daanu. waaw lu laa lay wax lu mu waxati sax. ah déggoo li wax. non non déggu ma ko de. Ah, wax. mais junior xanaa da ngay nelaw wala da ngay maanaam xam nga xam nga euh, moom déggoo li ma la wax. Ah. xam nga la laa koy laaj. Ah. li mu waxoon ba xam mu ngi ci ba tey wala 45 minutes la ñuy bëre wala. loolu laa koy laaj. ah ni nga waxoon la jël fee yaa ay waxi démb man man fàtte woon naa sax wax ji nu wax. Ah. waxi démb tey waxi tey la nu wax. gis nga bi li ma la wax deux minutes duñ ko am. lool lay wër. dégg nga fi mu ne xool rasu lay wër la da gerte ko yor. Ah. la da la rasu lay wër. waaw loolu maanaam loolu léegi laa bëggoon a xam ba xam li mu waxoon dafa waxoon quarante cinq mille la ñuy bëree ah. léegi wàññiwaat na ko ba deux na ko deux minutes ah. su ma ko xaaree deux minutes deful dara ah. la fay am yëpp maa ko fay def lan boo tax nga taxaw maanaam maanaam moom nee moom nee na mooy xale nee na xale la moo soxla xam nga ki kii ñi ma daan daanu leen ñi ma bëreel bëreewul ak ñoom lamb moo ma booleeg moom muy champion muy ndaanaan yaa may le 24 le 24 damay wan ni gars yi damay wan ni gars yi ah, lamb lamb xam nga dem demewul demewul noonu daal demewul ay maanaam ay kii démb la ñëw kii démb champion moo tax moo tax ma jël ko dama ko dem laaj ba xam ba xam loolu mu ngi si nag nee na 2000 la ma may du du a ko dégg 2000 su ma ko xaaree deful dara la fay am maa ko fay def incha allahu rabi. nee na 2000 bu la xaaree. waaw moom ba mu euh, nee na ñi mu bëreel. bëreewuma ak ñoom loolu dëgg la man bi muy bëre boobu maa ngi yor boobu maa ngi yor ay nag di sàmb barke Serigne Fallou bi ma dikkee nag dama rampe ba egg si moom waaye su doon ana bi muy bëre boobu maa ngi ana bi muy bëre boobu maa ngi Dakaaru Njaay damay bëre force uh-huh. rawante du mooy lamb du magante de dabante la rek ak ñi mi entraînement uh-huh. boo ñi mi entraînement rek yàlla yàlla suñu borom may leen li nga bëgg. la nga ba tey ah. yaa nga ca. lan la bëggoo jàmm ci combat bi combat bi waa combat bi du jàmm. Ah. bëri duur bëri duur jàmm la. <laughs> bëri duur moom du jàmm dama la bëgg a xamal lu leer. Ah, ma ak moom ñoo ko seq. te bu incha allah. balaa ñoo xaritoo ma daan ko ba ñëw seet si la yow. waaw incha allah ba moom moo nee na fu jàmm yéen mu fa fanaan instant bi kay làmb ji dégg nga tàmbali na euh. yaa may dégg euh. làmb ji dafa tàmbali bu yàgg euh. yaa may dégg am na am na yeneen yu fi xewoon loolu lépp dañ koy gas ñu suul ko la vingt quatre lañu jëm la vingt quatre lañu jëm su ma ko jàppee di ngeen xam ne kii mere naa ko mere bu yàgg kii su ma ko jàppee di ngeen xam ne mere kii déggoo li mu la nee naa la ñi ma bëtal ñoo ko bu qualité kii kii man na moom nee na moom dama mere. xoolal caméra bi loolu mu wax noonu lu mu wax noonu. Ah? lan la wax. moom dama mere. déggoo déggoo la wax. Ah, nañ leen may tuuti nee naa la ah. nee naa la moor mu ne yow ñii ñii sa gars yi sa yi ñoo la gën a xam ne am nga combat ah barki alxuraanu karim Mor Mor Mor dinaa def lu la mbër musul def incha allahu rabbi waaw may mu wax boog. waa ca waxal. Ah, may mu wax boog. waa gis nga nee nañu xale mool su ndaw. boo koy tàggat sax forta nga naxtaan ko. moom moom moom su ma naxtaanut day metti si moom. kon ndax bu dikkee rek bu dikkee rek yore tiiram naa day làbbali. Ah. day metti si moom man moolu ndaw laa ba ma joxee pep damay dem ba mu joxul pep damay dem si barke Sëriñ Saliou. man lépp laa pare. barke Sëriñ Fall laaj combat bi boo répé sax mën na am dóor mu daanu. lii man maa ko waxal. Ah. moom nee damaa mere at waaye man merewuma ko ah. ndax li ma ko nar def ah. maanaam su ma ko meree rek maanaam waaye yëmbal gépp dañ ciy dugg te bëgguma ko mere ah. waaw nee na mu daanu mën na cee am ma ni kii loxoom du jub kii ku musa dóor mu daanu ku musa yóbbu ardo yaa may dégg benn combat la am te kooku mu ne bëre dafa feebar moor mi mii moo la gën a xam ni moo la gën a xam la 24 juillet amu ci lu dul indi piano bi piano bi mu indi loolu am ci lamb ji kii maa ko mën fuuf ah, piano bi day ñëw lan moo tax nga piano bi ñun dañuy oh, ka lamb la nu bu ñu génnee ci lamb lamb du barke Sëriñ Fall laa la jiyal kii maa ko mën fuuf kii maa ko mën fuuf kii yàlla nañu yàlla nañu yàbbu yàlla nañu yàlla yóbbu si le 24 juillet yàlla nañu si le 24 juillet ma ñaanal ko jàmm ñaanal sama bopp jàmm ba boobu wooteel waa yëmbal waaw li waaw damay woo bi mooy maa ngi ci dëkk ci non na woote na woote bala ñuy bala ñuy bala ñuy bala ñuy bala ñuy sori damay woo mobilisation bi dama ci bëgg ministre Amadou Hott dama bëgg mu jàpp mu jàpp si jënd bee madame Ott maa ngi ciy woo mu mu jàppale ma jëli béy moo di woon jëpp maa ngi ko ciy woo xam nga di woo di woo ministre Assane Diota di di woo di ci woo tamit sama xarit sama sëriñ sama sang sëriñ Cheikh Gala Thiaw laay borom yëmbal maa ngi ko ciy woo bu baax a baax a baax di woo waa yëmbal yëpp maa ngi leen ci woo di woo Ablaye Thiaw di woo Moustapha Sall Moustapha Sall maa ngi ciy woo di woo di woo Mamadou di woo Serif Omar saw Omar saw tamit maa ngi ko ciy woo bu baax a baax ne ko mu jàpp si béy bu baax a baax Ilimane maa ngi maa ngi koy gërëm xam nga di wax ñoom ñëpp ñu jàpp si lamb ji mobilisation ñu jënd ay ay ay bee waaw di woo tamit waa yëmbal yëpp yëmbal un yëmbal yëmbal yëmbal yëmbal ba yëmbal yëmbal sud maa leen woo bu baax a baax ci combat bi li may promoteur bi mooy daal mooy su ma ko xool su ma ko xoolee sax dama am xool ko ndax lamb ji dafa dafa dafa dafa dafa métti quoi war naa alxuraan mais mais lu mu ciy séntu le 24 moo ko xam yàlla na ko suñu borom dafa ci barke yonente bi di woo tamit waa géejawaay di woo waa géejawaay bu baax a baax di woo sama xarit di woo Alioune ñëw jàpp ci lamb ji ma defaral booy bii nii. jaajëf waaw ok jaajëf. jege sa jege sa ñu nga woote. ayca woote nga xool caméra yi. waaw maa ngi woo Bawol yëpp képp koo xamante ne nii Bawol Bawol nga li ci raw tamit di woo waa Colobane bu baax a baax a baax a baax a baax ndax waa Colobane aw ma seen fay waaye daal maa ngi woo Bawol Bawol yépp képp koo xamante ni Bawol Bawol nga damaa bëgg nga ñaanal ma si combat bi ma daan Alioune Seye jël bu set huit di leen doole nag di leen wax ne Ameth Dieye bu Touba sant naa ko gërëm naa ko Jibi Thiaw sant naa ko gërëm naa ko Ibu euh, maire tu maire kër Samba Kane bi maa ngi koy sant di ko gërëm Ibrahima maa ngi koy sant di ko gërëm mook waa famem ak waa ñëpp waaw di sant daal di wax ne combat bi daal yàggatul mooy loolu fii ay réglages moo des kon wax ji bareetul waaye képp koo xamante ni yaa ngi jàppale Mor Kànk rek maa ngi lay sant si combat bu baax a baax ndax suba danoo am signature waaw open press yi mardi la open la suba am signature yéen bawol bawol lépp deux na ngeen ko xaar incha allah wasalaam. génnal génnal ngeen jox kay kay jàpp nañu ko boobu rek mais xëy na ngeen ko programme di woo waa Nangam Samb di woo waa Nangam Samb bu baax a baax a baax di woo waa Kaolack waa Ndiakhou Mballa waa Tivaouane Demba Tade fu ma dëkk maa leen di woo di woo waa Pire waaw di woo di woo waa réew maa yëpp maa leen di woo. ayca joxal génnal génnal ci ñoom ayca joxal génnal xool leen caméra yi xool leen caméra yi Kalidou